asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi di sëriñ Abbas moom mi di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Mooti dafa wax ne maa ngi nuyu ñépp mbooleem njabootu borom Daaru Mooti gi ak yi jotu la teew ngir ay gàllankoor muy nee na ñi ma bokkal borom Daaru Muxti te ñu ngi nii wetu ndeyjoor ak ñi di ay sëtam ñu ci seen wàllu càmmoñ ak mboolem taalibe yi aju ci moom ñépp nee na di leen sant ci wuy si bii nga xam ne moom ngeen wuy si woote bi mu woote tey ñaan yàlla sunu boroom mu def ko ndaje mu barkeel ndaje moo xam ne it dana ànd ak ngërëmul boroom Daaru Muxti nee na itam li waral wooteem bile dafa fas yéene liggéey bi mu bëgg liggéeyal boroom Daaru Muxti nee na daf ko fas yéene ànd ak ñépp bayiwul kenn rawatina nag ku ci am xalaat bu rafet mu wax ne liggéey bi nag nii laa ko bëgg a tàmbulee moo di ne nee na dafay ubbi compte banque ci tuuru borom Daaru Muxti yoo xam ne nee na fukki million moom la koy ubbee fukki million yaa ngi nii muy li ubbi compte boobule te nee itam su ko xasee tàmbali ba ubbee fukki millions yi lépp lu mu amaat def ko ca liggéey lu na it nee ay carnet yoo xam ne carte ya ca nekk carte ñaari téeméer lay doon nee mu bëgg nag ginnaaw bi mu ubbee compte boobu ci fukki millions yooyu dafa fas yéene lu mu am def ci carnet yi mu liggéeylu dafa bëgg kilifa gu nekk nga soññ sa waa kër ñu taxaw ci bu baax ba nga xam ne taalube bu ne lu mu néew néew ak mu ne danga ci def ñaari téeméer kon nag ni mu ko tàmbalee bëgg ñu tàmbalee ko nii la wax ne nañu ci dal tàmbali di ci góorgóorlu te ko xam ne liggéeyal boroom daaru moonu war nun ñépp te moom moomee di borom daaru daf daan wax ne su ngeen ma deful ni boroom ngaju boroom jumtukaay di def leeg léeg te mooy su soxlaam fajoo mu sànni ko su ëllëgee su ko soxlawaatee du xam fu mu nekk nee na su ngeen deful noonee day moom la boroom daal moo ci daan wax lu bari nee su ngeen deful loole noonee ne boroom jumtukaay booba di def xanaa di ma denc denc bu wóor bu baax loolu denc xol lay doon nee na su boobaa dana mel ni ak fett ak boroomu fett fett borom daaru da caa teg ne balaa amoon boroom njariñ da koo woon ginnaaw su ngeen ma defut na kookee wala ñooñee di def seen jubtukaay ni fett di jariñe borom ni laa leen di jariñe waxtu ma leen wane ginnaaw laa leen di ëppal njariñ moo ko daan wax fii ci ëttam bii nee na loolee lay fàttali kon nag ñu dégg waxam jooju lii nu tàmbali nu sàmm ko te sàmm war ma di sàmm war ma am di sàmm ay àqam liggéeyal ko suñ ci saxee ci loolu lee mu waxoon sax ci lii nee na lu nu yóotu danañ ko jot te lu nu song it danañ ko daan te ca wet ga it lu nu song dana daanu ndax moom mii di borom daaru mooti dafa am ngërëmul sëriñ tuuba te loolu moo lay daal di wax fa ne da am na ngërëmul sunu borom te mu leeral bu baax ne na ñépp xam ne kont gii muy ubbi ak liggéey bi muy woo njabootu borom daaru gépp ñu farlu ci te taxaw ci jotewut dara nag ak benn taxawaay bi nga xam ne war ci liggéey bi nga xam ne muy liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne moom la Serigne Cheikh Sidil Muxtaar alxalifatul am lil muridiya di woote foofa itam lanu fa war nan ko def ba mu mat nee na mi ngi ñaan yàlla sunu boroom mu may nu xéewal yoo xam ne lanu war ci sunu diggante ak boroom daaru ak lanu war ci sunu diggante ak sëriñ Tuubaa lépp danañ mën a am xéewal yoo xam ne danañ ko mën a matale ca na munu ware te neena nee alxuraan mooy wax ne wa ma dalika ala bi aziz ina dalika ala bu nu bàyyi fii nag ci jataay bi danaa waxtaan ak Bachiru moom Sëriñ Abdul Quddus mi yor sama kàddu ngir mu door ay waxtaan yoo xam ne danañu am mbooloo moo xam ne ci njaboot gi dana ñu mën a taxawee bépp liggéey boo xam ne kër gi laaj na ko dëkk bi laaj ko mbooloo moomee su boobaa dana amu tur dana amub jublu dana amub liggéey di leen leeral itam ne mbooloo mu ànd bu nekk am na ñuy ne ca kanam sëriñ Moustapha sa moom sëriñ mu sëriñ moo daaw balla nee na moom day defu ko muy jëwriñ yàlla moo ko def muy jëwriñ ba na na ko nekke woon ci wetu way juróom sëriñ Mohamadou Awa ci sëriñ Abdul Xuddus jaar ci ko ko defe mooy ji xanaa di ci dolli ne fu mu war a teew fu ne ak lu mu war a jiite lu ne su amee gàllankoor moom sëriñ Moustapha sa sëriñ maam Thierno moom sëriñ Cheikh Awa Balla moomi moo ko fay teewal moo koy jiite di leen leeral itam ne village bii day di dëkk bi yeesalaat naa ko ci loxol sëriñ Cheikh Astou Faye moom sëriñ Mouhamadoul Habib mu di ko saytu na mu ko yore woon jàppe ko noonee nee na itam ci liggéey boobu nga xam ne mooy village bi day ñaan waa dëkk bi ñu xam ne am na ay biir yoo xam ne balaa dem mari dafa war a fekk chef du village bi dem ba amatul pexe waaye ñoo xam ne yàlla rekk leen dajale lu baax rekk leen dajale bala ñuy dem ci yoon wale daa war a fekk ki ñu leen booleel dem ba amatu ca pexe ginnaaw loolu maa ngi dellusi si nag nee na muy dellusi di fàttali boppam di fàttali ñëpp ne sunu boroom dafa wax ne أفعصبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون دل وخني وما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدون دل وخني أيحسب الإنسان أن يترك سدى لو لب لم يتكي سن بروم جامو كرك موتخ مي بند موتخ بند كون نانو ديكو جامو تديكو سلال جامو غوغي te doyloo ko te wóolu ko te ragal ko te loolu lépp wuñ koy def nag jaamu gi ñu di ko rafetale ci ginnaaw sëriñ Tuubaa mi nga xam ne suñu bunt ci moom mooy borom Daaru Muxti mi tax nu daje fii nu daje tey moom day moom borom Daaru Muxti moo mel ni nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëgg ak taalibe mel ni ci wet yépp nag xam na lu masa xew taxawaay ba ca boroom daaru moo di taxawee ba mu ko gisee gennaaw ba xew-xew ba jàllee moom Sëriñ Tuubaa ba mu gisee boroom daaru moo di dane ko bu ñëpp meloon ne yow su ëllëgee du ma sonn muy lu rëy kon dey ku dégg loolu war ngaa xam ne kii doy na royuwaay doy na njiit kon li nu war mooy sàmm war maam sàmm ak xam te loolu ci sunu biir la war a tàmbalee te mooy ku ne te mooy gone war mag mag it yërëm gone ci biir war ma jooju maa ngi xamle ni lépp loo xam ne sama kilifa yi jiitu woon daanañu ko aaye maa ngi koy aaye na ko ñépp koo xam te lu ñu aaye lu nekk aaye sunu borom la suñu borom ko njëkk aaye di borom daru moti da daan wax ne lépp lu la sunu borom aaye lori aduna ji rek jar na nga bàyyi ko aw jàng ngi noonu kon nag ab seetoo ngi noonu it ku demen cee xool gis kon li ci des rek mooy di leen fàttali li nu te moo di li munta ñàkk moo di ndox mi nga xam ni moo aju ci dëkk bi ñu farlu ci fay ji bu baax a baax forage bi nga xam ni amagul courant incha allah danaa joxaat Cheikh Mbacke Fall ñaari junniy litre yi gasoil mu def ko ci waaye rek di leen seere na sant naa ko bu baax moom Cheikh moomu léegi ba tey ci li nu bokk nun ñépp mbooleem kuréel yi nga xam ne dañuy sikkar gis naa ne zikar de lu baax la ndax baax munta weesu alquran wax ne wala zikrullahi akbaru wallahu mu ma tasnaun ba tax na ma bëgg ñu di ci bañ a boole am tëgg ndax am na ñuy rax ci biir ak di ko déggee neneen di taafantalaa yoo ne ñooñu la def ak li ñuy def benn la te bukkuñu lu ñuy def kon nag bu ñu leen may yoon woo wale bu yemee ci yu sell ja lu ko gën amut wala zikrullahi akbaru te bu loolu jàllee nee na nañu sous mu teew si xaw ndax jotagu naa teew si am déet waaye nee ñu ngi koy yóbbante màggalug daaru day yàlla na ci yàlla yóbbu waaye la amoon daaw moom bu mu amaat mukk muy ci wàllu sécurité ni ñu tëje woon dëkk bi mu mel ne état de GS lañu nekkoon dara jëru ko te yaakaar naa ne la gënoon te gën a war mooy dolli ay yoon yu ñu godoronge ci biir dëkk bi ak corniche bi waaye li amoon lu ñaaw la yàqal nu ci suñu digganteeg suñuy bokk ñoo xam ne doxalanteeg bokk lañu waroon a dox te mataluñ ko ndax kenn amul foo jaar mbeddi suuf yépp ñu sakku ko dëkk boo xam ne godoron bu fa jaar bu nekk dafa jàll te ku fa jaar ku nekk jàll rek ngay man waaye doo jàdd fenn du ndeyjoor du càmmooñ loola bu mu amati mukk loolu la koy yóbbante leneen li ci des mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom it yàllaa ngi def ñuy yëngutu ci wàllu politique yi mi ngi ñaan te di leen digal ñuy rafetal bu baax a baax seen diggante ndax li ñu bokk dara waru koo yàq te loola moo gën lépp loolu la leen di yóbbante di soñu ñépp ci ñu gën a farlu ci jàngal gone yi alxuraan ak xam-xamu diine ak yarub diine ak yarub ak taalibe di ñaan yàlla sunu borom mu defal nu jàmm ci biir réew mi te def ko ci àdduna bi yépp di leen fàttali rek la ma waxoon ca màggalu daalu ga te dama waxoon ne ushidullahi taala wa olin dafa waxoon ne maa ngi seereel yàlla sunu borom te jataay boobee xay na ñàkkul ñu ko takk ba tey dama waxoon ne yoon wii di yoonu murit ak fii mu jaar jëm te muy yoon wu la nga xam ne ñi ma ci jiitu woon la ko tàmbalee ci sëriñ bi ko sos muy sëriñ Touba ak borom daaru Muxti mi nga xam ne moo di taalibeem bi dëggal ba ci sëriñ Cheikh Hadji mii nga xam ne moo fi bàyyi ko ñoom ñëpp radiyallahu taala anhum loolee laa fas yéene lu ma ca di ko taxawee ci laay jàpp te duma ko safaani mukk loolu laa leen waxoon ca màggalug daaru ga waxoon lee itam waxoon maa ngi tàllal sama loxo boo xam ne lépp luy dimbalante lépp lu dig bokkoo di jëm ci mbooleem njabootug borom daaru jëm ci mbooleem njabootug sëriñ Touba te lépp loo xam ne lii loola jàppalante googee dafay jur fi kulli ma huwa wa nasrun lil islaami wal muslimin loolu la waxoon ne e, fas na ci yéene taxaw te tàllal loxoon ñépp kon sëriñ bi dafa wax ne ci gàttal moo di daja bi daja soññee la daje ay bokk yu daje wan leen ne leen fii la ñu war a jëm nii lañu war a doxal te xam nañ ne ña nga ca waaye nag liggéey bi li ko ci gën a itteel bokk na ci mbooloo mi kenn ku nekk sa kilifa gu nekk soññ sa njaboot ñu taxaw ci bu baax ba waxtu wu ñu demee ba yàlla maynu ba nga xam ne compte boobule lu am solo nekk na ci ñu seet liggéey yi nga xam ne insha allah dëkk bi yelloo na ko war na cee am te mën nañ koo def waa ñu daal cay jublu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 kon nag ñun ñi loolu war a jikkoo ci rafet sa te rafetal àndul beeg doxante beeg bëggante du dara walla la ku ne dem si kon maam soxla lu ne mu du soxla war nañ ko mën a am te yoon kenn ci nag moo waral mbool mbooloo bi moo waral moo waral wax ji mm. moo waral boo woote bi ay gan nag dëkk bi moom màggal gi li muy li muy kii li muy rëy rëy kenn xamul footal fu ne nit dafay dem kër gu ne ñu lu yëg kon loolu war nañ cee jublu seet lii ni nga leen wax fii dañ mm-hmm. ci mën a dajale ñu dajale fu ndam def ci ay kër loolu màggal gi de mm-hmm. gan ñëpp xaj nañ fii bu ñu ko kër yoo xam ne yee ca war la mm-hmm. kenn du dajale ñëpp mën nañu ko ak mu daloo ko kon loolu nañ ci taxaw baax baax baax ndax kilifa bu nekk fële ca teen ba ñu wàcc la ko yóbbu fa nit yoo xam ne amuñu àq doomu aadama xamu kenn kenn bon mën na am yoon bu jaar ci biir dëkk bi moom bu fekkee xat na bu na amee sàngaram bi fi jaar sax bu génne ci yoonu Louga jaar fii moom nga kii moom ab cinquante mètres bu fekkee oto bu mag la bu safay nit bu jaaree fii di dem nit ñi wàcc ba jeex hmm. continuer daw hmm. fekk oto bu ndaw la bu jëm ci dëkk bi bu hmm. doxee ba tolloog fa mu bëgg a jàdd bi jàdd bi waaw incha ko bàyyi fekk ko ragal mais sax ñu mënoon day dara nekk ci xëy nag lii nag lan xintoo yoon yi ak kër yi nit ñi daal moo waral ñëpp nañ ci def ah, sama sëriñ la sama kilifa la sama sama sama xarit la bon nag war naa ko waxal li nga xam ne wax na ma ko ci suuf te lu rafet nee na yéen bokk yi eh, boo gisee ku fa ñëw ci moom ku ciy doom def na la doom koo xam ne kii rakk la ci def na la rakk ku ciy taalibi nee na sa jëwriñi la bu ngeen ko mënee gis wala lenn lu leen naqari ci ci ci moom ci ci ñàkk gis wala ñàkk waxtaan walla ñàkk yitte loolu du du ñàkk yitte ci moom ak mag la ak bu jamono ji tollu ba tax ne loolu waaw waaye waaye moom waaw nee na moom du def musta def kenn dara lii dama ko wax ci suuf day day sunu waxtaan nu waxtaan ci suuf mu waxtaan waaw nee na lépp lu waay dégg ci moom te xam ne loola awul yoon ne leen wër ne loola wax ko diglewu ko def ko li mu li mu li mu digle te di ko def daal mooy li yàlla digle moom la digle li mu tere moom la tere dafa yoon wa sëñ Touba awan ak maam Thierno neen sëñ ab ba mu fi jóg ba sëñ maam Thierno aw ci ba jóge fi sëñ Modaaw Balla aw ci ba jóge fi sëñ Abdou Khoudoss aw ci ba jóge fi sëñ Cheikh Khadi aw ci ba jóge ci foofu rek la awu leneen lu ngeen dégg nag lu lu loola te la woon ne ay sos la yoo xam ne dañ ko sos waaye moom waxu moom daal jëwriñi taalibe yépp la bàyyi taalibe yépp la waaw ku ci ne rek waaw jërë ngeen jëf su jikko nee na na leen bu baax a baax a baax a baax fi nekk yépp ñu sëriñ am sëtu di sëriñ Basiiru di sëriñ Xaalit man na wax ji fi ma ko jëmee mooy ci nun sët yi noo war a soppiku te am jom te laxasaayu mag ñi kat li leen waroon lépp def nañ ba dem sëñ Modou Balla bi mu jotee ci dëkk bi dañ ko ne ndox mënoo ko am mu indi ndox mi ndax booba gouvernement français fi nekk mu xeex ba ndox mi dikk xeex ba dootul sa dëkk bi bi sëriñ Abdou Khoudous dikkee mu xeex ba ñu am pañukaay xeex ba courant bi dikk xeex ba auto téléphone automatique bi dikk bi sëriñ Cheikh Khady ñëwee lépp lu fi desoon def na ko ba mu àgg ba ci kër gi nu toog di kër borom daal sëriñ Abbas lii mu def tey mënoon na lu muy def mu bañ ñu koo yëgal xanaa ne nangam rek laay def nduy ko ci rajo bi koy dem koy def ndax ay taalibe dong la nu ceerno dong la nu yaakaar